maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant xam nga li ngeen di wax nii mooy yóoral li kàddu yu may ñëw di waaj a wax parce que kàddu yu may wax nii ku tappet du ko wax koo xam na tamit da ngay nekk di lekk mburaake bu sedd du ko wax mburaake balaa muy neex tàng jër góor dëgg dafay log nen bu tàng muy bax baxi si làmminam te du tuflit pomme de balaa muy xam na gërëyee dëgg par pomme de terre bu baxee ci cin nga xolli ko na ko burux bu jàllee sa diggante police bi ak sa ŋaam boo dee góor dëgg waroo nga te man am naa fi ànd ak Macky du tax tamit ma wax li nga xam ne moom laa sentir gis nga créé bi nañu ko jël tëj ko amul benn njëriñ maa ko wax lu tax ma wax ko dafa am fu ma ko teg parce que tamit nañu waxante dëgg di topp nit di topp nit ba fàtte liggéey bu yàggee dootoo liggéey te kooku lu mu munti wax le président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko gëm Macky Sall bu ko sénégalais yi bëggul woon duñ ko joxaat deuxième mandat mais bëgg biñ ko bëgg bëgg mu liggéey moo tax waaye bu ñu koy topp di ko wax na ko toppal diw bàyyil diw jàppal diw ana diw ana diw ana diw bu yàggee moom mandaam jàppaate rek te Sénégal du dëkk boo xam ne dañu président commissaire nañu soxla wala président pénitencier Macky Sall du pénitencier ba ku mu jàpp rek ne la ràpp ci kaso le président de tous les Sénégalais ah ah ah waaye dama gis ne buñ fay wooyee Karim ba tey keneen demu fa te bu ñuy wax tamit démocratie dañu war a xool loo xam ne mooy yenu maana man damay wax dëgg rek yàlla tax président li may wax nii président Macky wax naa ko ko parce que amul sens Abdou Diouf moo ko fi tegoon mais lii amul sens le président maki Sall n'a pas le temps de topp ay benn nit il a le temps de topp les projets de ces Sénégalais c'est ça Macky Sall du topp ci benn nit rek ñuy wax ay diw la jàpp il n'a pas le temps de Sonko ah amul temps wu Sonko amul temps wu keneen ah ah les gens qui parlent du troisième mandat c'est des gens qui qui vont créer des polémiques yoo xam ne xam na ñu ngi leen yónni mais Macky xam na li mu war a def ak li ko yoon war a may buñ ci eggee danañ ca wax waaye topp di wax président Macky Sall lii ak lële loolu bu jotee danañ ca wax bu ñu kenn rey bu ñu kenn fat man ànd ak Macky du tee wax dëgg ah. ànd ak peuple bi tamit bu ñu deful yoon danaa ko wax bu ñu ma meree ñu xam ne man ëllëg si solo waxoon nañ ko ngay dégg. waaye bëgg fat Sénégalais yi bëgg leen a rey Macky Sall na jàpp diw na tëj ci mais y a des gens yoo xam ne bu ñu waxee bu leen tontu Macky wax naa ko ko nee naa ko man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu lay tàccul waaye ndem si yàlla gi dans sa xol daan na ko ko wax. te daan naa dégg Kouthia di ko woy naan ko bul faale bul toppatoo yow demal liggéey. yow bul faale bul toppatoo yow bul faale waaye ni get up get up get up waaye get up now nga ne yow ay bul faale bul faale ay bul faale Why in the get up? Why in the get up?